yaa njaay Néné Diallo Néné Diallo Néné Diallo mooy mooy Néné Diallo mooy exemple militant wu Sénégal Néné Néné Diallo lekk na Abdou Diouf lekk lekk Moustapha Niass lekk lekk Ablaye Wade mënaan mënaan kii li ko Ablaye Wade defar bursu bursu maire yi bu ñëwee Demba Diallo tëb ñëpp ah Demba Niang tëb ñëpp jox ko bursu maire yi tey war mu war Ablaye demaat kii Macky Sall yow nag bu Sonko xam naa bu Sonko defal nag muy muru nekk Ibadou nag kii mooy kii Ibaadu a tax ma dem kii ga dégg nga nee na Diallo yow nee na nga taxaw ku ñëw nga ànd moom billaahi fi nga taxawee baax na de barki sëñ Bamba noonu li amul noonu amul eh Sonko lekk du yombal Sonko di nga fal fu mu jubal ah baax na dama gisaa la ko la waxoon dina fal du nga Macky saala la ne mu ne ab ab kii Ablaye Wade ñaari ñaari kii la doon ñaari Peugeot am na kii xoolal fi yow àdduna <laughs> garaaw dañu àdduna dafa garaaw gis nga kii yaa Ndiaye nee na jàll kii euh, Macky Sall bu muy campagne yi yàlla dafa may li ñu naan garab war a nekk garabu penc law bi da ko gis ba koy gor loolu la maa ngi rappelé wu xoolal Ablaye Wade ko mbalak naan daje naa ak mu yor ñaari Peugeot ak benn baaful Samba Thiam bu mu luwee ah mais Macky Sall amuloo na <laughs> mais nag kooku mooy folli ma loolu tax ma jàpp yaakaar xam ne yàlla mooy fal Sénégalais boo leen diaboliser xool diaboliser Sonko def lu leen neex bu yàlla ne Sonko da nekk président incha allah dina ko nekk te man li may gis si diaspora bi ah li nga gis si diaspora ma ma jaaxal yaa Njaay xam nga ñoom ñoo ànd ak Sonko barki alxuraanul karim yàlla ma tiim fekkee ma dëgg yàlla naa may gis ma ko yàlla ma tëdd Sonko ñi ànd ak moom du ñu sonn ji de da nga gis borom 4 4 di fay ko ay 800000 ànd ak Sonko ku nekk États-Unis Canada di wari fii ay 200000 par weer ànd ak Sonko na geesu gis ne na jàll boo xam ne bu defee ndambem bii day fanaan amul fu mu ko mu denc ko si frigo bi parce que bu defaraatee day daanu amul lu mu lu mu jëndee bañ a fréquemment mu tàngal ndambe bi jaayaat ko nit ñi koo koy ànd ak Sonko déggoo ma de maire bi nga xam ne bu yeewoo day gis doomam tëdd nelaw sëtam tëdd nelaw gorom tëdd nelaw benn doom rek lay jóg uti te bu ñëwee day mel ne caro bisaab dañuy xëcc ka euh, yi jël jël tiis bi bëggaj ko maire boobu day ànd ak Macky Sall maanaam soo déggee maanaam bi xamatul boppam non su non non mooy ànd ak Macky ñu ànd ak Macky Sall ñu sonn ñi ñu sonn ñi ñu ànd ak Macky Sall gis nga gars yi gars am waroon mën sax ànd ak Macky Sall pour seen koom-koom ñooñu ñoo ñëw di leen xalaat yéen am na ko génn waaye yow tey waa non am beneen affaire yow assemblée mën nga ñu jàpp Sonko yow Macky Macky ma def riposte bi démb 17 heures